de retour sur le plateau amis téléspectateurs voilà ñu def première partie bu amoon solo torop torop ak li nga xam te ni moo nekkoon actualité phare yi nga xam te ni jot naa xew ci année 2022 bi mais tamit ñu dalaloon fi une sister une brave dame ba nga xam te ni day dox ci lépp li nga xam te ni entrepreneuriat wala euh, création d'emploi wala lépp li nga xam te ni acteur de développement dañ ciy dox social ñu dalaloon deuxième partie 100 pour cent acoustique ñu dalal ki nga xam te ni mooy Sadir Thiam plus connu sous le nom de Pastef dañ koy bàyyi rek mu jouer premier morceau euh, balaa ñuy commencer suñu waxtaan Pastef

illallah eh. we é de queimar. nuyu naa la di la ziar di la souhaite une bonne et heureuse année 2023 que cette année soit remplie de bonheur de d'amour et voilà li ñu di xaar si yow yëpp incha allah ñu jot si sa dex noo def. maa ngi sant salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tour ak sa sant di nuyu téléspectateurs yi di nuyu àdduna wërngal këpp di la nuyu yow Iguette. maa lay fay bu baax Sadekh mm. euh, acoustique Sadekh mm. ak carrière musicale am Sadekh est-ce que mën nga revenir tuuti ci sa ci sa carrière musicale depuis ñun mm. bu ñu la xamee ba tey da ngay jouer macha allah événement pratiquement événement yu am yu mag yëpp fii yow yaa koy jouer est-ce que mën nga revenir un tout petit peu ci sa carrière musicale. waaw bon Pastef moom benn benn artiste la boo xamante ni si xam nga. musique moom a ñor te bañ ci nekkee yàgg na parce que ci ci rab lañ commencé. xam nga parce que lu yàgg si ñun la nekk si ñun bokk si ñun. Mhm. donc si si rab lañ commencé jóge fa dem école musique jàng instrument mhm. jàng way mhm. xam nga commencé nag bon nekk ci groupe bi nànk nank formé groupe commencé ba tey ñu nekk yor sunu sunu groupe bu bopp di jouer quoi. est-ce que mën nga revenir ci groupe bi euh, groupe bi kañ ngeen ko créé ak ñaata ñaata membre ñoo nekk ci groupe bi. waaw bon groupe bi moom xam nga biñ ko créé yàgg na parce que maa ngi joobandoog ñu bëri comme ku si mel ni Big Plo mhm. xam nga bi sama benn gayan boo xamante ni si man ak moom ça fait des mhm. ñu ngi nekk sax ci benn label nii nekk ci ay projet yoo xamante ni si incha allah xam naa ci 2023 bi mhm. di ngeen ci gis ay ay résultats quoi incha allah. Euh, ñu gis ni euh, la majeure partie de ces soirées c'est des mm. soirées en acoustique. Mm. pourquoi choix acoustique euh, nga arrêté rap dugg ci acoustique pourquoi loolu. waaw mais musique moom xam nga yëg-yëg la rek ku si mhm. nekk bon parce que monde bi xam nga. Euh, ki ci nekk li ngay yëg rek ngay def moom li may yàgg di wax rek musique moom ñànkatang la rek yaay xool soos bi nga ciy def mhm. donc bon xam nga nekk nañu ci rab bi bon ut nañ ci expérience mhm. ba am ci expérience c'est-à-dire mun a bind mun a xam xam nga mun a bind way mhm. mun a composé mun a def lépp moo tax tey ñu songu acoustique bi parce que acoustique nag dafa ëpp mu ne acoustique la ñuy def mais musique la ñuy def parce que dañuy dañuy def acoustique dañuy def reggae dañuy def lépp world music la ñuy def waaw. d'accord euh, lan moo gën a jafe ci ci ci musique lan moo ci gën a metti bind bi wala jouer bi lan moo ci gën a metti. musique moom boo bëggee dëgg moom dara yomb si. Ah. waaw liggéey bu liggéey dëgg la laaj. Mhm. parce que dafa nekk loo xamante ni si dafa laaj concentration laaj temps. parce que musique moom dafa nekk loo xam ni boo ci nekkee il faut nga jox ko parce que dafa fiir dafay soxla temps bu mat sëkk parce que musique moom mënoo ko maanaam dina jafe sax nga koy def di ko booleeg leneen mhm. parce que dafa laaj temps nga nekk ci am concentration bi xam nga et tout ça quoi euh, dafa laaj temps nga nekk euh, père de famille mhm. souvent affaire yi war laa génnee nga dem voyage madame euh, xale yi compréhension boobu mhm. nan lay amee ci li nga xam te ne mooy ci kër gi waaw mais moom ñoom dañuy comprendre parce que ci ci loolu lañ ma fekk bi ñuy bu ma leen xam aussi ci musique laa nekk xam nga ah. donc kon bu muy bu ñuy ànd aussi dañuy dawal compréhension quoi mhm. parce que musique lu nekk si ñun la mhm. loo xamante ni si euh, mën naa ne suñu deret la nekk quoi du loo xamante ni dañ koy forcer wala dara parce que luñ gëm la luñ bëgg la mhm. donc ku ñu si fekk si rek da ñuy ñëw ànd ak ñun si lu ñuy doxee quoi Pastef am nga album parce que souvent dañuy gis ngay génne ay single Pastef am na album wala lu ñuy xaar wala album bi ñor na wala ñoragul waaw loolu laa lay wax nii sànq rek ma ne la ñu ngi ci benn label nii di liggéey incha allah. Uh-huh. ci album bi lañ nekk ñu ngi génn ay single mais xam naa bu ñu yàlla defalee jàmm moom ci de 2023 bi. Uh-huh. di ngeen ci gis ay résultat quoi. Mm, ñu xaar kon ci 2023 bi incha allah ñu xaar album bi daal allah euh, ñu bàyyi la ñu bàyyi la rek nga jouer sa deuxième morceau. Mm-hmm. Euh, balaa ñoo wax tuuti ci ci album bi. ak ñi nga xam te ne ñoo nekk ci album bi. Mm. Thank you.

dëkka Dale. un titre intéressant euh, parce que mën nga revenir ci son bi ngay doon way léegi parce que wax nga yaay wax baay wax dëkkaale ak wéer di mu mel ni jamono ji loolu war nañ ko message bi ñu war a déglu la parce que la majeure partie du ton ñi ñu xam te ne dañoo ay malade mental dañ leen di gis ñuy eere rek ci mbedd mi waaw bon way bi moom maa ngi bind benn jour bi nga xam ni maa ngi tëdd nekk man kase ma feebar wéet gisuma ndey gisuma baay ma xalaat tey ñi nga xamante ni si ñoo nekk bitim réew leen jaajëfal moodu moodu yi ñi nga xam ne ñoo génn daani mm-hmm. doole nga nekk yow kase ci foo xam ne gisoo ndey gisoo bàyyi wére di dab la mm-hmm. xam nga gisoo ku la dimbali mm-hmm. tey ji nga gis ñoo xam ne sax buñ gisee nit ku tawat te ki tawat pour man lu mu soxla mooy nit ñi di ko jigee mhm. di ko jàppale parce que am na dof yi sax yooyu gis ni na ma yàlla baal sax ci mhm. wax bi mhm. bon ñi nga xam dañoo am mu wére di di feebaru xel donc nga gis ñoo xam ni sax daanaka seen feebar demeewul noonu mais leen nit ñi di daw mooy dem sax ba augmenter seen feebar ba mu egg si niveau boo xam ni mënoon na fa bañ a egg mm-hmm. donc comme ñun ay porteur de voix lañ dañuy bëgg lépp lu ñuy way mm-hmm. mu doon loo xam ni dina jariñ doomu aadama yi c'est hyper intéressant mm-hmm. parce que à entendre euh, nga way malade yi donc c'est quelque chose boo xam ni man sama ena ma touché maa ngi déglu paroles yi rek laa doon déglu en fait euh, mu nekk lu lu intéressant mm, mm, mm. Euh, un premier morceau nga woy ki nga xam te ni macha allah ku tedd suñu sang suñu sëriñ yaakaar tey ak ëllëg muy Ahmadou Bamba nga tijjee ko euh, ñëw teg ci malade manto est-ce que son yi dafa bokk ci ci ci album bi wala ce son juste des singles yoo xam te ni yow yaa ko génnee waaw mais son yëpp moom dafa bokk suñuy projet rek xam nga parce que ñun moom comme ni ma la ko waxee rek bu ñuy def album tey bëgg nañu mu doon loo xam ni ku si nekk di nga ci gis sa bopp parce que ñun mooy li may wax rek chaque jour musique moom boo ci nekkee fexeel ba ñi lay déglu chaque jour comme ni nga ko waxee yaa ngi déglu son bi di déglu parole yi mu lay touché donc loolu lañ ci gën soxla mhm. nit ñi dañuy déglu message yi ñuy lancé muy mun di jàll bu baax di egg ci parce que lu jóge ci xol la ci xol lay dellu ok euh, macha allah mhm. euh, Pastef est-ce que balaa dara di xew mun nga ñëw wax tuuti ci sa ci sa ci sa euh, album bi nga xam te ne incha allah mhm. yaa ngi ne nañ ko xaar ci ci ci 2023 album bi est-ce que mën nañ xam ñaata morceau ma ñaata morceau lañ ci war a xaar a ñoo ciy gën a doon loo xam te ne day marquant parce que bi nga dalee way ba tey man son yi nga déglu man dama koo sentir en fait dama koo dama koy dama ko yëg sama xol. bon album bi moom comme ni ma la ko waxee rek album la boo xam ni comme ni ma la ko waxee léegi ñëpp dañ ciy gis seen bopp incha allah parce que maa ngi liggéey ay ndaanaan na ku ci mel ni Pape Seck mi bon ku nekk sa wér rek bon sa xel day war a dal parce que tamit duñu bàyyi mukk ñuy def ay erreur parce que souvent day nekk ak ñun duñu corriger dañu tette xam nga lépp lu ñuy def dinañ ñëw ba ci moom aussi muy ko ñàkk ki ñaan koo xam ni àdduna ñëpp ko war a delloo njukkal parce que moom daanaka mun naa ne lépp moom la mm-hmm. saa yu xëyee day bàyyi ay yitteem ñu fekk ñun ñuy ay ndaw ñoo xam ni moo ñu mag mun naa ne suñu kilifa la uh-huh. ñuy fekk si ba fi ñu ne jël xam-xamam di ko partager ak ñun lépp lu ñuy dund mu a ñu bon daf leen nii daf leen nii tey bu sañoon ñooy raw ci àdduna mm-hmm. donc muy lu touchant quoi donc pour wax leen rek ngeen dalal seen xel te xam ne incha mm. bon li ñuy togg moom bu ñu ko yàkkee ñëpp album baa ngi ñëw mm. dal suñu kaw mm. Euh, ñuy nuyu bu baax tonton Pape Seck ñu lay nuyu au passage di nuyu ñi nga xam te ni euh, ñoo ñuy suivre à chaque fois sur Leral TV wala ñu ñuy suivre sur euh, sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook que ce soit YouTube Twitter et cetera Instagram on est partout Leral est partout macha allah di jaajëfal aussi suñu auditeurs yi parce que xam ñëpp xam nañu leeral rajo existe ñu leen di jaajëfal bu baax a baax comme on a l'habitude de la dire rajo taximaan yi c'est pas pour rien ko ñu tuddee ko rajo taximaan di jaajëfal ñi nga xam te ni émission comme ñun dañoo taam dañuy wër rek fépp fu ñu dem euh, gis ni fii war nañ fay def émission mu réussir euh, dañ fay dem toog fa waxtaan ñooñu muy restaurant yaa soxna ñuy jaajëfal bu baax a baax ki nga xam te ne moo fi nekk muy le grand maxa euh, grand maxa borom macha allah borom baax c'est vrai nit ku baax nekk partenaire ak leeral depuis bu mu tijjee ba léegi bañ na ko ba danaan bu ngeen def émission fii seen kër la ñun amuleen lu ngeen ñuy tàgg donc ñu koy jaajëfal di jaajëfal aussi ñi nga xam te le temps ak maxu c'est vrai employé yi ñu fi fekk la ñu ñoom tamit ñu nekk des personnes yu ouvertes des personnes yu ouvertes plutôt des personnes yoo xam te ni macha allah da ngay la tu es tu à l'aise tu es toi donc muy restaurant de classe restaurant boo xam te ni lépp lu ngeen fi bëgg daf fi am macha allah des plats extraordinaires lekk bu set sell te wóor macha allah naan lépp lu ngeen bëgg am na fi yaa sax na nekk fii juste ci côté route nationale bi ñuy jaajëfal aussi Sénégal tonton Ngaari fàttewuma la suñu communicateur traditionnel borom penc aada ak cosaan Awa Diop fàttewuñ la Fatima Fall nee naa ñun leer on est une famille euh, dañuy jàppalante dañuy suturaalante dañuy muñalante dañuy comprendre mais dañuy yokkalante aussi yokkalante bi mooy lan des fois uget def erreur keneen moo koy woo wax ko ko si pet sans que kenn di ko xam euh, defe naa c'est ce qui fait euh, notre force c'est ce qui fait notre bonheur c'est ce qui fait la passion bi ñu am ci métier bi tonton Sakho Matar maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax moom tamit un oncle sans façon euh, di di ñu redresser di ñu mettre sur le bon chemin tout le temps Serge sama technicien bi sama sama lépp sama sama xulowaale en fait mais ci la bokk di jaajëfal yéen ñi nga xam te ne à chaque fois vous êtes là à chaque fois vous nous encouragez à chaque fois vous êtes là pour le meilleur et quelles que soient les situations leeral ku ko wax xam ne télé askan wi la leeral ku ko wax xam ne population bi nekk dañ la fay fekk

waaw ñu ngi euh, nuyu ñëpp di nuyu Sénégal yëpp di ñaanal ñëpp euh, at mu bees mi ñuy dugg yàlla na doon atu jàmm atu wér atu salaam atu naataange lépp lu ci waaye di ut rek yàlla na ko si yàlla jàppale yàlla def ci réew mi jàmm surtout jàmm aussi quoi yal na ko yàlla def ci réew mi parce que je pense que ni réew mi soxla nañ jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi defal ñëpp wér defal ñëpp sutura maa ngi souhaité ñëpp une bonne et heureuse année 2023 Mm. Bonne et heureuse année à vous, bonne et heureuse année à toute la population sénégalaise, particulièrement à les, aux Lougatois. Bonne et heureuse année à, nos parents, nos familles, à, toutes les personnes qui ont eu, fait, qui confiance en l'RL TV durant 12 mois, sans faille. À toutes ces personnes, quelles que soient les circonstances, ils sont derrière nous, ils nous encouragent, ils nous Euh, donne la force d'être les personnes que l'on est devenues aujourd'hui bonne et heureuse année à nos de la Mauritanie tout le temps dañuy encouragé di woo téléphone Assou Ndiaye c'est ma grande sœur tonton Alioune Mbaye tonton Sarr borom transport mag bi macha allah ñu leen di jaajëfal gis nañ message gis nañ appel yi tout le temps euh, di souhaiter une excellente année à toute l'équipe de Leral, que ce soit à Louga, à Dakar, à Thiès. On est partout. Juste, on aime décentraliser parce qu'on sait que les régions et Tulenbok. bonne et heureuse année spécialement à mon père. Mon père, euh, hmm. voilà, celui qui, à chaque fois, me donne la force et le courage d'être. celle que je suis et de rester celle que j'ai toujours été sama yaay booy fàttewuma la bay ba Mouhamed euh, du ma fàtte mukk kii nga xam te ni mooy madame Diop euh, ma jigéen kookoy yaay ami Kole macha allah sama sama sama sama lakkal sama xarit sama sama dooma noonu lañ koy doxee saa su ne bonne et heureuse année à tout le monde excellente fête que l'année 2023 soit meilleure euh, li amoon ci année 2022 muy naqar yëpp incha allah en 2023 yàlla na ko yàlla def bànneex mu tuuru ci Sénégal saawaan baawaan ba ñëpp yëg ko Pastef ma bàyyi la rek ak acoustique bi nga tëj merci beaucoup waaw merci à vous ça a été un plaisir waa di aussi di nuyu sama gars yi ma àndal sama staff bi ku mhm. mel ni ñoom Ouza Ah, Tafiscoori Dial di waykat bu mag moom it waaw ñoo ànd mhm. ah, Big Flo xam nga abusi waaw di nuy waat bu baax grand pape ak ñëpp di jaxaal yi uh-huh. seize ak gars yi ma fekk yëpp jaangeen jëf voilà ñu tëj musique en acoustique merci Woo, ñafe, ñafe mooy faj waaw Pastef mm-hmm. euh, Sadekh alias Pastef très disponible machallah bonne soirée yu neex a neex euh, nous vous rappelons aussi que y a y a une grande soirée inchallah de Papa Serigne euh, fii demain inchallah juste pour le plaisir euh, de sa clientèle euh, voilà yaa soxna ñuy organiser soirée bu mag bu nar a xumu parce que c'est cent pour cent musique bu saf sàpp incha allah may jaajëfal aussi sama sama tailleur ki ma habillé 78 139 62 15 Ngour Ndiaye nekk fee Nord Foire 78 139 62 15 merci à Senaba aussi pour la coiffure ah j'ai pas eu son numéro mais merci beaucoup pour ça pour la coiffure c'est magnifique donc noonu lañ koy defee di jaajëfal bu baax sama rakk ma ma jëm moom lay àndal macha allah moom may gunge fépp moo tax du ma tiit du ma ragal mama bapp la nee naa la doomu baay yombul yow xoolee woo ma bëtu doomu baay mukk déedéet danga maa jàpp xam ne sa mag laa foofu rek nga ko jàpp un point un boo gisee lu ma métti da lay métti torop nii lañ koy defee saa su ne leeral TV euh, yéen yéen suñu force nos téléspectateurs nos internautes merci à vous et restez concentrés le meilleur reste à venir et c'est sur leeral TV merci beaucoup.